parce que laay laay avec la complicité de la régie mu projectel ñu ben, ben, ben, ben benn extrait bu ndaw rek ah ñu ñu ñu gis ko ci ñi nga xam te ne ñoo nekk Walis rek euh, léegi-léegi ay association sàmm jikko yeeg ñooñu. ay nit la yu seen dara doxul. d'accord ñu def na ñi doxlee leen ko tax yef yëf seen i yëf dox. waa léegi sàmm jikko moom sàmm jikko hmm. xanaa yi bokk ci gis nañ fi ay nit yoo xam ne dañuy escroquer ay dañuy escroquer ay jigéen fii ci dëkk bi di leen nax di leen juplan woo leen ci labat can ya ñu takkee xale yi sax xale ya leen ko jox yamuñu ca ñu leen di juplan di leen nax dem ba ci biir ci bir sàmm ci koy lañu ñu bokk ñooñu wala. Eh, hmm. ci way ci bu leer. ok ci bu leer a leer a leer leer. man fi la juddo yaroo fi magge fi Medina la juddo ci ay ci ay titre français may man ay révélation ngay def ni de. man yon limay wax rek luma ko man hmm. <laughs> ci réew mi la dekk kuma xam-xam ne ku ku ku ñu yar la bu lamb yar ba tëggoon tey ma ma ëpp làmb ja. mais li am wax len ko dafa dafa rafetul te ñukoy def seeni jikko rafetul bañu ci am sàmm jikko ndax ku sa jikko rafet doo fekk sa nawle ne yow jigéen di daal dooleem nga di ko cop lan les faits sont là. dañu da ñoom ñoom ñoom ñoom dañu wax directement waa. alors Karim sa réponse par rapport ak lii lan la. amu si réponse quoi parce que. Euh, loo xam ne la dama ko dépensé yàgg na te wax naa si waxaat si waxaat si peut-être mooy c'est pas éclaircissement damay wax rek nii. dañ ko sulliwaat ñu ne xeexu sàmm jikko yi tamit sàmm loolu da ci war a bokk. Sadio moom laa expliqué Sadio xam nga lii xam nga lii nii saa yi. vaar la quoi. non dégg nga si ban vaar yow la xam nga luy vaar yow. luy vaar non vaar mooy da ngay boo bu ñu image man may wax contraire li ma taxaw di wax nii loolu mooy vaar mais pas pas pas lii du vaar lii benn waay la joo xam rek kii nii ce gars là man peut-être xaw ma ko mais su ma jumulee na film boo xam ne maa ngi koy visionné di ko temps yëpp mu tudd film film baa ngi tudd ak mbon maanaam ci olof mooy infidèle ci tubaab. Hmm. moom mii ci la bokk si moom bu yax bi. lu dëgg film boobu ñu koy ko ci xamee naa ko si daal xamuloon sax ni kii si maanaam xamee naa parce que damay xool personnage hmm. naa ko ci film boobu xam naa ni moom ci la bokk. Hmm. loolu laa xam naa ko ak mbon moom lay promouvoir kii xam nga kii moo ko ànd sa mbir ci ko mu ñëw jubóo sëñ si lu mu lu mu mën a sos de man maa ngi xaar dégg lu nekk. lu nekk ci lu bon man maa ngi koy xaar man lu bon lu nekk maa ngi xaar dégg ko te commencé naa ko dégg donc mën yi sam me dérange pas bu dee can xaalis ba ma jigéen takkee maanaam jigéen yónnee ma xaalis ma takk ko ci da nga dem nga laaj Seydina Muhammad moom nan la takkee soxnaam bu njëkk ndax xaalisam la wala soxnaa ko jox soxna saa ko jox xaalis donc loolu man man damay sant yàlla ba bu ma kenn fekk ci loo xam ne yonent bi bëgg ko sallallahu alayhi wa sallam man ci loolu sant yàlla hmm. kese léegi nag du ma attardé wu ci loo xam dafa dépasse parce que jigéen suñu yaay lañ jigéen dañ koy suturaal te sëy ndab la rek bu ñu la yàkkal boo ibbee li ci nekk neexu la ubal ndànk tegaat keneen mën naa jëriñoo doo fi nekk ci média bi naan diw jabar jabar ma defee du ma ko wax benn say neexul du ma si wax du ma ci sori mais mën nga takk nit ngeen nekk nga xam ni kii mën leen a dem nga yeewu ko ci jàmm na fase dagane noonu la takk dagane noonu la fase dagane du dëgg hmm. am naa droit fase nag maa fase Mohamed <laughs> bisimilah baax ma bañoon di jaajëfal Karim ci wuy bi nga xamante ne ni wuy si na ko euh, damay njëkk euh, question wu euh, Babacar Babacar li muy laaj Babacar Kébé mii moom mooy Eh, ndax bo bok legui li coow yi bari bari mus nga jema a ak wali sek wala nga togg ak wali sek waxtan non ça à souvent ñu bëri dañuy wax lolu quoi est-ce que ak wali sek mais bro dañuy wax deug rek quoi mais sénégalais lo ñu bëgg ma togg ak wali sek par force. pour nga yedd ko waxtan ak la ah. layante bir kon man ma yedd wali pour mu baye sol yi rek jigéen. non man ni non dañuy waxtan non bro il faut pas qu'on se voit la face quoi. d'accord 8 ans ci ren ans. ñuy xeex ba yow nga ñu caricaturé Serigne Touba Xaadimu Rasul ndax yow mais Mame Matar dégg nañ ko mu ne woon a Wally Seck waxtaan moom te yéen a bokk xeex presque rek non déedéet Mame Matar Gueye ñoo d'accord mais moom def na dem na moom na ba moom dem na ba conférence de presse Wally ne ñoom dañuy taxaw ci Wally Seck sax xool ni muy soloo Mame Matar def na loolu te man dama ko attaqué woon si loolu mu def après laay soo comprendre li mu doon def moo tax dama koy jégalu sax ci attaque yi ma ko attaqué woon lu tax mu defoon lool parce que expérience bi la quoi xam ne pas ko am parce que naa lii la doon sóoraale quoi dama bëgg ngeen xam ne man du man maay si Wally Seck di wax ak li ñuy wax mi ngi koy dégg ba muy xëy di sol carax tàggul kenn di sol ay baril di ma gàddu saagam tàgguwul kenn ba muy ba ñëpp jógee ñu caricaturé Serigne Touba ndax moom parce que dama ne leen Jeune Afrique kii euh, Charlie Hebdo xam waaye du wax dafa ni carrément ñi ngi sonal Wally Seck ndax saak jigéen la yor te pourtant sëriñam baa ni rob la c'est que loolu bu leen ko fàtte waa tuuti mais loolu rek war na tax Wally war a bàyyi mu sedd quoi ñi ñuy wax ak moom ne ay taalibe Serigne Touba ay ñoom mbay pex dégg naa la wax ñoom ñëpp di woote mais nañ yu baax ay tuba yu baax taxaw woy gaa ngi fi di sol costume yi rafet di taxaw di woy mais nan la c'est quoi le problème mu ñu ko wax loolu ne ko changer sa vêtement yëri jigéen ngay sol bàyyi ko kon ñoom loolu problème la si ñoom quoi après ils viennent pour ñu ne ñun jox ay leçon de morale te ñoom ñu mën ñuy jur mag ñu fuuf ñun ñu nekk fi di xeexal dine bi di ci daj du nekk donc attends parce que état du Sénégal lii dafa leen arrangé benn góor jigéen bu mag dafa nii Jean-Luc Moreau bokk nañ ci dëkk yi ëpp li muy jot subvention ci xeexu góor jigéen ci ci ci dooleel góor jigéen ay milliards tey boo demee Dantec man tey sama soxna bu nekkoon en état su demee foofu ñu koy defal consultation wala dara damay fay góor jigéen lu ko daal bu demee du fay carte gratos bu toogee ñëwul sax ma bi woo ko waaye ah, mais doo ñëw yow kii waa ah, mais gisuñ la seen bi gisuñ la parce que dafa may subvention yu dugg ci foofu mais réew moomu noonu ñun fan lañ jëm. kon waaye mu ngi encaissé nga bëgg a jàpp ci xaalis yi. non loolu xaw ma xam naa ko xam naa ni dafa projeté image bi nii du couleur LGBT pour induire les Sénégalais en erreur pour génn pour mën a utiliser loolu comme alibi pour wax ne moom def ko loolu moom def na ko waaw léegi nag fitu taxaw naan diw góor jigéen la ba mu ko weddee laa gëm diw Macky Sall Jeune Afrique dañ ne franc-maçon la ba léegi weddi ko gëm naa ni franc-maçon la cest à man boo weddee rek man ma gëm man man li nga wax rek laay gëm li mujjee wax yow laay gëm fi ne dafa taxaw moom wax na carrément ci lobby yi bokk ci ki mais na mais def defaat ko defaat ko mais soit yaa ko tay lagi nag ñaar moo fi am ñii dañuy ut yàlla ñii di ay nit man utuma ay nit ñun utuñu ay nit nañu Sénégal yi booloo gis nga lu bon bu ñëpp àndoon di ko di ko bëgg taxul mu baax fa yàlla bu ñëpp àndoon di bañ taxul taxul mu taxul bëgg ko lu baax pareil kon ñun utuñu ay nit ñun dañuy xeex pour dëggal Sénégal fexe ba Sénégal ñoom kuy def lu bon nga laaxatu maaka sax am na ay góor jigéen foo dem ci àdduna am na ay góor jigéen mais ñu laaxatu nañ laaxatu moo tax ñuy xeex pour ñu criminaliser homosexualité pour ñu dugal ko ci texte yi du leneen amul leneen parce que dañ ko séq état boo xam ne ay saay-saay lañ tey boo demee ci code de la presse bu Sénégal article 18 day wax ni journaliste bi amul droit léegi maanaam tey bu ñëwee Karim dañ koo jàpp ci góor jigéen moo beneen waay C'est mon tour, journaliste là Je prononcé prononcer prononcer tout ce qui est orientation sexuelle et tout mais loolu loolu lañ c'est te journaliste yi ngi fi te ko rek suis la nekk du sonal ñun di wax ay wax waali wax la lay wax te rek combat donc du ci yi nga koy ñëw bëgg rek ko fi ñun duñ depuis France ne pare nañ 3 milliards et quelques ci bépp artiste bu bëgg promouvoir Sénégal da xam ne artistes yi fii ni ñu mel ci ci ngóor xaalis dañuy bëgg dawal oto yu cher kër gu rafet Sénégal sax tedd nga rek noo tedd baax na ñu ne sa yaay moo ko liggéey xamuñu da nga sàcc xamuñu da nga noo ko <laughs> dara pour nga xaalis pardon mais loolu artiste affaire nit la fa bakket moo doyal bakket moo doyal man mii tey su ma amee portable suba maa ngi bëggaat oto grand yàlla binde noonu mais nag ñi ñi ñaa ngi rawantee grandeur nit mi ngi nekk si nga am doyloo li nga am mm-hmm. nga am li ngay am dignement mais bu dee ay waxu critique ay wax yu ñaaw ay saaga ay Karim def na lii Karim dafa def lee c'est normal parce que dañu dugg ci monde boo xam fa ay nit yoo xam seen teraanga ci loolu la nekk ci loolu la nekk ku dem bay jouer film nga dem ba bijaaw di jouer film tuddee film bu ñu tuddee ak mbon infidèle kooku xaalis xaalis rek tax nga di ko def kooku te taxaw dafa day wax balaa mi mu gën daw day wax ba kañ a ci gémmiñ gi pour defaan lii